ñetteelu mandat ci bopp réewum xam ne ma ngi ñi nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal ñoom am nañu yaakaar ci élection ne moom la ñu dëgmal yéen kay gi di Le Quotidien ak Vox Populi njiitu réew mi di président Macky Sall ci diwaanu Paris la France daan nay wax ne moom kenn mënu koo xoxotal avant muy nekk njiitum réew sax boobee kenn mënu koo xoxotal asamaa nag bi mu yore réew yéen kay gi ne ñi nga xam ne ñooy kujji gi daan koy tontu tontu yoo xam ne maanaam weex na xatt saf na sàpp ndax ki nga xam ne mooy Abdoul Mbaye daan nay wax ne Macky Sall ñemewul ndax nit bu ñemee dëgg amu fit jërul muy taxaw ne man am na fit te mois de mars bii nga xam ne moom la ñu génn fi ñu fekk maanaam nawetub daaw bi fi la ñu fekk néeg yi seen yëpp ne nañ ko maanaam mois de mars bii nga xam ne moom la ñu génn Macky Sall noppi woon na lool bugaan gi dani nee na Macky Sall na wàcce boppam Déthié Fall nee na nag Macky Sall mi nga xam ne moom lañ dénk pouvoir yëpp mu taxaw fi nag naan man dama amee doole waaw man lañ dénk nguur ak nangam ak nangam loolee ci boppam jur te wax te jëru rappelé kan yéen a kaay gi ba tey di la quotidien nee na nag ñi nga xam ne daal ñooy opposition bi Macky Sall merloo na leen enquête yéen a kaay ñu fekk fa professeur Moussa Diaw nee na nag opposition bi ñoom daal ci seen rôle la ñu nekk Macky Sall ci boppam soxlawul nag mu dem ba diwaanu France naan man maa yore doole ji Ousmane Sonko ne kàddu yooyu rek bu ngeen ko déggee ngeen xam ne Macky Sall ragal la Macky Sall tapper la kàddu yi son Sonko la waaye nag moo Macky Sall dina xam ne daal ba si góor a koy bay yéen a kaay gi de la turbine ci élection locale yi nee na am na ay liste parallèle yoo xam ne moom ànd na ci liste parallèle yi nga xam ne ma ngi Kolda ak na moom Macky Sall ñu laaj ko na ko yeneen liste paraleel yi nee na loolee nga ñëm nekku si maanaam yoonam nekkul ci yeneen liste parallèle yi naam sax ñoo ngi koy doo di ko mbubboo yéene kaay gii di wal fajre nee na nag lii mooy firndeel ne Macky Sall ci boppam amul kàttana ci biir Benno Bokk Yaakaar amul fa baat boo xam ne maanaam su waxee dana ñu ko dégg la ñaareel bi moom Macky Sall wax waxee ci boppam la def ndax moo fi taxawoon ne du nangu benn yoon ay liste parallèle tey nag daan liste parallèle Kolda ak Bignona moom ànd na ci yéen a kaay gi di direct news élection locale yi yeewi askan wi du ca dem ca diwaanu Bignona ak jur yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na askan wi ak gëm sa bopp jamono ji nag cour suprême mooy seenug sànni tàcco yéen gi di source daal di bàyyi mbir moomee nag wax ci nag ci magistrature bu Sénégal ndax bëri na ay post yoo xam ne kenn nekku fa cour d'appel bu Ziguinchor amuñu président fi nga xamante ni mooy cour d'appel bu Thiès amuñu président waaye sax amuñu nag li nga xam ne mooy général yéenekaay gi di Source A nee na jamono ji nag dara téerewul dara téerewul ñu amal li nga xam ne mooy ab conseil supérieur de la magistrature yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na Sénégal nag sëy yi ni muy tasee nag jéggi na dayoo Sénégal sëy yi ni muy tasee bëri na ma ngi mel ni tulleeg màlle ndax nag bi ñu ko xaymaa daal bis bu set lu toll ci ñetti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ci ay sëy danañu tas yéenekaay gi di L'As xëy wax ci li jëm ci wàllum diabète nee na Sénégal nag téeméer boo jël fukk yi dañoo diabète waaye nag fi nga xam ne mooy saint maanaam ñoo jël nag raw gàddu gi ci déndu Afrique téeméer boo jëla maanaam juróom-ñaar fukk yëpp mën nañoo amee diabète ñu ko xam yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na Sénégal lu jëm ci wàllum xeex wallum chômage bi loole nag lu toll ci mille milliards daan nañu ko si dugale te amul benn njariñ ndax amul benn résultat ma ngi mel ne dañ koo sànni si ngelaw le maanaam mille milliards la ñu jël def ko ci lu jëm ci wàllum xeex chômage ci Sénégal te kenn gisul résultat yi loole nag yàq xaalis la yéene kaay gi di Libération nee na kilifa ak Simon ñoom nag seeni avocat ñaanal nañ leen ab bàyyeeb néeg ni ko ni suba lépp dina leer mer waaye nag journal bi di enquête nee na Simon attention Simon dafa malade ba maara di taale maanaam dafa feebar moom Simon bu yaana mar yéen kaay gi du l'observateur daan nay kaso yi li am ci kaso yi sax maanaam du yëfu ndax ña nga xam ne ñoom lañ fa dencee maanaam sonn nañ genn xeetu sonn koo xam ne maanaam jéggi na dayoo yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy wax jëm ci wàllum drogue bi nga xam ne dañu ko daal di taal lu toll ci dix-neuf tonnes la ñu taal dix-neuf tonnes drogue mondial 2022 Sénégal ni ki démb def na ñaari bal ci dara ki nga xam ne mooy Congo Kalidou Koulibaly nee na jamono ji nag am nañu confiance am nañu yaakaar ci kan bi nga xam ne moom la ñu jëm yéene gi di sunu lamb ñu koy fekk fa Balla Gaye numéro 2 moom nag 100 pour cent la bëgg am ci ñeenti kombaam yépp Balla Gaye numéro 2 nee na dafa bëgg daan Bombardier Balla Gaye numéro 2 nee na dafa bëgg a daan Eumeu Sène Balla Gaye numéro 2 nee na dafa bëgg daan Boy Niang Balla Gaye nee na dafa bëgg a ki nga xam ne mooy Gris maanaam 100 pour cent